teewaay bi tay nak mom moy dañuy valider sunu coordination 93 coordination bi nak président Macky Sall moom moo ne nañ def chaque département euh, euh coordinateur yi à coordinatrice yi regroupé wu mun a liggéey mun a convaincre nit ñi mun a mobiliser nit ñi té wax ci tolé encore parce que euh, DSE à chaque fois amna ay postes yi nga xamantene yi amul ñu solo da da bari nit pour réduire encore lolu yépp moo moo waral ñu daal di créer ay coordination par département. surtout maanaam jigéen ñi sànq sama discours waxoon naa ko nee naa na jigéen ñi jóg ndaxte góor ñi fu ñu defee benn rek mën nañ fa def fukk ndax ñun ñun ñoo jur doom yi te ñun ñooy sëy ci kër yi ñun ñooy dem ci ci ci ci ngénte yi ñooy dem ci mariage yi te wala xool wala xoota su dara amee tamit lu metti ñun jigéen ñi ñun ñoo fay teew ñu ñoo nekk aussi ci daayira yi kon nag yaakaar naa ne jigéen ñi dañoo am doole bi nga xamante ne bii ñoom mun nañoo convaincre nit ñi dimbale suñu président Macky Sall ba Sénégal jëm kanam.